ci jamono bu metti ci jamono bu doomu aadama yi di dund lu metti ci wàllu tolof tolof ci jamono bi jullit bi di soxla ay ñaan ngir xaajoom faju ndax adduwaawu silaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit ci jamono boobu am ñu jóg di woote woo xam-xam ci ay naxi kase ci jamono boobu ci la nit ku ñépp xam ci jàngale ak waaraate ñu ràññee ko ci média yu bari ci réew mi waaye di boroom xam-xam bu mag dem ci réew yu bari gëstu fa xam-xam bu sell te dëppoo ak diine ñu gën koo xam ci oustaz Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimin jóg ngir xeetali jaamu yàlla ci ñaan yu am solo te lépp di lislaam indil leen seet gu sell te gaaw te dëppoo ak diine waaye gannaaw ba mu la seetalee ba nuppi dalay indil solution ca la mu la gisal woon la yoon ba ngay jaar mbokk yi yow mi soxla ku la gindi teg la ci yoonu gaaw te wóor moo xam danga bëgg tukki wala ngay jaay wala ngay sànc kër wala entreprise wala looy soobu bëgg ci xam lu leer jokkool ak Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimin ci 77 197 95 37 77 197 95 37 jërë ngeen jëf.